asalaamaaleykum internet bu Sénégal ñu am mbégte tey nag ñëw fii ba Thiès daal fii dalal suñu soppe suñu lépp mooy euh, Tafsir Abdourahmane Gaye ñu war a waxtaanee ci gàmmu euh, ñu ñëw fekk ko fii ci biir daara ma bàyyi ko muy nuyoo ku ñu ñu ñuy seetaan ak soppeem ñu koy seetaan ci biir inter ci biir Sénégal bàyyi la nga nuyoo rek ak internet. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki àdduna bi fa tabaarakallaahu yéen ñi nga xam ne yëpp yéen a ngi seetaan di suivre site bi di Sénégo ñu ngi leen di nuyu macha allah di ko jaarale ci ñoom di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal aq di ñaan yàlla na yàlla subhaanahu wa taala boole ñu baal ñu ngi toog fii ci taset ci daara ji nga xam ne mooy complexe islamique xalifa Ababacar gay waaye ku gis suñu toogaay bi xam ne am na lu manqué lan moo manqué mooy Chérif Mamine Haydara kon fa tabaarakallaahu nit ki day def li ñuy tuddee xayaal mooy jeeneer ni Chérif Mamine Haydara mu ngi toog ci suñu côté ndeyjoor kon nuyoo bi ñun ñaar ñoo ko bokk ñu ngi àndandoo ak Chérif Mamine Haydara di ko nuyul mbooleem ñi nga xamante ne ñooy mbokki internet yi salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si. <laughs> xam nañu amoo jot waaye dañuy xuus rek ci ci débat bi mooy nan lañu ñu war a gàmmoo nan la ñu war a màggalee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa macha allah nan la ñu war a màggale sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam boo ñu ko laajee dañu koy laajaat kan la ñu koy laaj mooy ñu ñu raw ñu ñu féete kaw raw ñu ci macha allah ci xam-xam waaye raw ñu ci ragal yàlla macha allah nañu jël kenn rek muy maam Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu wala ñu jël ñaar. boole ci Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu bi ñu laajee maam Seydi Aj Malik dani ala azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu dama ni màggal leen judduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lu tax ñu koy màggal li gay jëkk a laaj bu ñu la nee defal nangam danga naan lu tax ma koy def boo ko xamul mais ni dañ ko ni Maodo lu tax ñu koy def mu ne xisbatan ngir wut tiyaaba kon ndekete tiyaaba mën na ci juddoo te jullit léppam tiyaaba bala war a doon mais nu ñu koy defee mu ni isa lam yakun naxwal xaraami udulu bu fekkee du jéng jëme leen ci lu araam kon nu ñu ko mën a màggale te du loo xamante ni daf ñuy dugal ci bàkkaar màggale ko noonu baax na beneen bi mooy ñu jël Serigne Touba radiyallahu taala anhu ñu yóbbaale géew ñu ci des ñëpp moom dañuy taazimuhu bi sunnati màggal leen ko màggal yonent bi salaay salaam bi sunnati waaye teg ko ci sunna ñu ni ko waaw bu ñu ko màggalee teg ko ci sunna lu mu ñuy jural mu ni yaquudunaa lil jannati daf ñuy ommat jëme ñu àjjana waaye bi his di yaadul minnati li muxlisin muazim dolli ku xéewal day am ci booy màggal yonent bi salaay salaam waaye boo ma laajee nan la ñu koy màggale dama na naan rek kon nañu ko màggal ci sunna waaye nañu ko màggal fa tabaarakallaahu ci loo xam ne du am dara lu araam <laughs> ban jeexital lay màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban jeexital moom lay am ci julit bi koy màggal d'abord bi ñu ko laajee Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala wax na bihis diyaadul minna dolliku xéewal ana ban nit waxuma julit mais ana ban nit moo bëggul xéewal gu dolliku kon ñëpp ko bëgg kon jeexit bi mooy dalay dolli xéewal muy benn beneen bi mooy li muxlisin muazim waaye nag kiy sellal màggal gi moom la beneen bi mooy am na beneen jeexit mooy fa man yuazim mawlida xayril baraya ahmada falaa yuxaasabu gadan inda alxisaabi almufimi naa jël benn boobu rek képp koo xam ne yaa ngi màggal judduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li muy def ci yow ëllëg yowm alqiyaam kenn du la réglé maam Seydi Aji Malik radiallahu taala anhu daat ni màggal judduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na fawzun wa gunmun am na koom am na ci waaye texe am na ci dafe daa ni gàmm ñëpp gis nañu muy li nga xam ni moom lay def ci zaahir muy wàllu koom wi bari na réew dëkk yoo xam ne ci Sénégal amuñu woon yoon gàmm ñuy gàmm wala màggal yu ñuy màggal moo waral ñu defal leen yoon moo xam latérite la moo xam goudron la bari na dëkk yoo xam ni kenn xamu leen woon lu waral ñu xam leen màggal wala gudd juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na dëkk yoo xam ne amul woon courant lan moo waral tey moo am courant màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wommat na gouvernement bi ak ñeneen ak ñeneen ba ñu àgg fa xam ni dëkk bi nangam la ñu manqué loolu fan lañ koy xamee li ëpp ci gàmm yi lañ koy xamee wala ci màggal yi kon loolu mooy jeexit yi nga xam ni màggal juddug yonent bi da koy def waaye bu ma jëlee bi nga xam ne nag personnel la mooy dina dolli mbëggeel jullit yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moom rek la ñu yàlla bëggloo ndax moom la yàlla ni neel jullit yi qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumullah nee leen bu ñu bëggee yàlla bëgg leen rek nañ la topp buñ la toppe man yàlla ma bëgg leen kon cofeel googu nga xam ne daf koy jëmbat ci xol yi tey bari na ku bëgg yonente bi sallallahu alayhi lan moo waral nga bëgg ko mooy danga fanaan ci gàmmu dégg Baay Alaaji Ibrahima Saaxo wala fa tabarakallahu nga dégg Alhaaji Idrissa Gay wala gàmmukat nga dégg ko muy wax wala oustaz Pape An mu naan yonente bi sallallahu alayhi nii la meloon nii la meloon yonente bi lii moo doon jikkoom lii moo doonoon jikkoom loolu bari na jullit bu bëgg yonente bi looloo ko def waay bari na jullit bu soppeeku jóge ci baax dem ci gën a baax mu ko jëlee ci màggal juddug yonent bi bari na julit bu jógee ci safaan amoon ay jikkoy safaan dem ci baax julit boo xam ne ku ko mas a tooñ mu fayu mu dem bay jéggale fan la ko jëlee ci fanaan ci guddik yonent bi salaay salaam jeexi di daal soxna si bari na waaye dama koy tënk rek. <laughs> Euh, bu ñu waxee nag Seydouna Muhammad ñëpp a ko bokk sallallahu alayhi wa sallam julit yëpp a ko bokk mais Seydi Hadji Malick <laughs> bu ñu waxee gàmmu xelam xel yëpp dem ci moom xel yëpp dem ci Tiwaawan bien vrai que ñëpp a ñëpp koy màggal lan gisee loolu lan nga ñu mën a wax lan la lan la ko yonent yonent bi defal ba moom buñ ko màggal noonu. maam Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu xam naa ni am na benn xusuusiya jagle bu mu am waaye jagle bi mu am du ñu wax sax fa tabaarakallahu ni lii la ko yonent bi defal ak lee la ko yonent bi defal sallallahu alayhi wa moom li mu woote loolu la ko yàlla fay suñu boroom subhaanahu wa xam nga kenn ku nekk rek boo tàllalee sa ndab la nga bëgg mu defal la ko moom la la cay defal bu ndab li setee bu ca defee ndox ndox ma day set mais ndab li bu tilimee ndox mi bu ci demee day tilim ndoxum yàlla mi ma ci misaal bu ma la koy jox ci ndox ndoxum yàlla mi moom dafa set ki dékk nag la mu dékk na mu mel rek noonu lay mel séddaaj maa yi nag moom dafa bàyyi lépp dani man wutuma bis wutuma anniversaire wutuma dara dara dara lenn rek laa bëgg mooy màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal nag bind téere bu ñuy wax xilaatu dahab mu doon fan weeri bind yoo xamante ni weeri bunt yoo xam ni la tàmbalee ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog bi yonent bi génnee àdduna ñu dugal ko ci bàmmeel ka mujj ca bàmmeel ba ña dugal yonent bi ci bàmmeel nañu ko suulee fan la ñu ko suul mam si dañ Malick bàyyiwu ci dara radiyallahu taala anhu ca biir way ya nag mu wax ca ni wa laysa li amal alqaaka yaa amali siwal mahabbati wa taazimi wa salami gis nga li lay wax ni moom gisul boppam ci li mu def xool na jumaa yi ma tabax jàkka yi ma tabax zaawiya yi ma taxawal daayira yi daara yi ñi ma jàngal xam-xam bi loolu yépp bi ma ko càmbaree gisuma lu ci war a tax yàlla fay ma ba ma mën a dajeeg sama soppe bi ndax xam naa ne loolu même bu ma ko yàlla faye du tax ma mën a am garaatu dajeeg yonent bi salaay salaam lenn rek da laa yaakaar man Maodo lenn rek laa yaakaar ni bu ma ko yàlla faye mën naa dajee ak sayyiduna Muhammad salaay salaam ñu ne ko Maodo loolu lan la mu ni ko mbëggeel gi ma ko ëmbal daal xam naa ni moom bu ko yàlla pesé wóor na ma ni bu dee ni gi rek la xool xoolul jëf yi xoolul dara mën naa daje ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ak màggal ko si wal mahabbati mooy mbëggeel wa taazimi ak màggal ko kon bokk na ci li ko may li mu am mooy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam alaaji Maalik léppam sayyidina Muhammad la sallallahu alayhi wasallam wasalami ak nangul ko mooy lépp lu yonent bi ne Seydi Alaaji Maalik radiyallahu taala anhu li mu doon dund mooy fu yonent bi teg tànkam bu teggee mu teg tànkam foo xam ne yonent bi tegu fa tànkam kenn du fa gis alaaji malik kon seydi aj malik radiallahu taala anhu li ko yàlla defal bu ñu doon laaj ci fan la jaar ba am loolu dañuy wax ni rek cofeel gu mu ëmbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag gàmm nan la ko daan defee lan la daan defee gàmm pour ñu mën cee roy maam seydi aj malik radiallahu taala anhu ci li nga xam ne moom la ñu nettali ci at bu njëkk bi ni mu doon ga ni mu gàmmoo woon moom ak maam Seydil Hadji Rawaan Ngom la woon dañu wax ni moom dafa départ baqara di tari jëm si Mariama maam Seydi Hadji Malick maam Seydi Hadji Rawane Ngom bu paal départ suuratu Mariama jëm si naasi ñoom ñaar ñu tàmbali ci guddi gi gannaaw gee di tari kii départ baqara di tari ñuy jaabante kii di tari alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ba ca rikzan ndax rikzan mooy baat bi mujj ci xaaju kaw bi mam sidi xaji rawxaan ngom départ ci kaaf haa yaa ayn saad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya iz naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni wastaala alrasu shayba moom it ba ci min aljinnati wannaasi mooy baat bi mujj ci xaaju suuf bi ñoom ñaar ñu ni ñu kaamil bii nga xam ni rawaan jàng na xaaju suuf alaaji malik jàng xaaju kaw ñu ngi ko yéene yàlla defal ñu ko addiye yonente bi ñu màggale ko ci guddi juddoom kii mais bi jamono doxee nag fa tabaarakallaahu après la tàmbali bu guddi gàmmu jotee mu jël su suñu benn maam bu ñuy wax alxaaji maxtaar sàll fa tabaarakallaahu mu nekk ci zawiyem bi wala maam Seydi Haj Malik radiyallahu taala anhu daal di nekk ca jumaa ja foofu nga xam ne mooy jumaa ji nga xam ni moom la xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér foofu la maam Seydi Hadji Malick daan nekk maam Alhaaji Makhtar Sall nekk ci zawiye bii nga xam ni foofu la ñuy defee burdu bi muy zawiye Seydi Hadji Malick bi nga xam ni falañ ko deeñ kii yenn taalibe yi di fanaan ak maam alxaaji raw euh, maam alxaaji Malick yenn taalibe yi di fanaan ak maam alxaaji Makhtar sàll ñu leen di jàngal xilaasu zahab di leen jàngal li nga xamante ni mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci am sa laaju diine nga laaj ko bu ñu defee noonu ba fajar ñu daal ni lii yéene nañ ko màggal judduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa wax ji nag dama ciy dégg ne xalif bi décision bu mu jël ci nañu gàmmee suñu kër nañu toog ñaan suñu kër nañu toog jàngal alxuraan suñu kër kon du fi lu bees Seydi Hadji Malick njëkk ko def du fi lu bees fa tabaarakallaahu maam Seydi Hadji Malick radiyallaahu taala moo ko tijji woon waaye nag kalifa bi it fa tabaarakallaahu dafa sukkandiku rek moom ci xam-xam ndax comme dafa am lu am lu daawul am mooy am na feebar bu am boo xam ne ñëpp xam nañ ko feebar boobu am te ñëpp xam ko macha allah ñi nga xam ne ñoo yore wàllu médecine la ñu ca xam xalifa bi xamu ko ba ñu demee daaw ba war a gàmm ñooñu wane ni feebar bi bokk na ci li koy lawal mooy daje bu bari mu ni kon na ku ne gàmmoo sa kër ren bi mu waree ñëwaat it ñëpp gis nañ ko mu dajalewaat docteur yooyu nga xam ne ñoom la waxaloon ñu xamalaat ko ndax yàlla dañuy fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamuun na ngeen laaj ñi xam bu ngeen xamul mu dajalewaat leen ni leen ndax fi feebar bi tollu tey mën na ñu gàmmu am déet ñooña xamal ko ni ko li fi nekkoon daaw mu ngi fi beren te comme moom responsable la te kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatin bu Sénégal yëpp dajee Tiwaawan laa wax Tiwaawan bu fa ñëpp dajee di fa koo ci xamante ni feebar bii di corona jóge na ci yow dal sa moroom moom xalifa bi mooy responsable bi responsabilité bi ci kawam la jëm macha allah mu xam ni comme nag li ñu soxla rek mooy tiyaaba li ñu soxla mooy màggal juddug yonente bi te ku ne mën nga ko def sa biir néeg boo toogoon sa biir néeg yow kese yore sa kurus di def allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim màggal nga juddug yonent bi léeg-léeg sax mën nañu wax ni boobu sax mën na gën a sell léeg lekk léeg-léeg ndax léeg-léeg nga dajalee ay nit kenn wax fa lu warul wax waaye boo wéetee sa néeg mën naam kenn du la wax looloo warul wax xalifa bi bu mu càmbaree yooyu yëpp loolu moo waral mu ni kenn ko ne na nga gàmmoo sa biir kër fa tabaarakallaahu mu doon loo xam ni nangul nañu ñeneen ñu organiser gàmmu ci seen ay dëkk fa tabaarakallaahu ndax foofu la seen gis-gis toll waaye moom it ñu nangul ko boobu nga xamante ni mooy gis-gisam ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu yëpp waaye ñaan yàlla mi nga xam ne moo yore feebar di ko lawal ak di ko dagg yàlla na fi jaarale dagg feebar bi ba mu yem fii. kon nan wax xale yi yoo xam ne ñu ngi commentaire di wax ne xalif bi waroon nañu gàmm di am yenn commentaire yu joxe ci kilifa boo xam ne jël na décision ne gàmm du am. waaw man de fa tabaarakallaahu li may wax mooy xalifa bi waxul bu ñu gàmmu. Mhm. da na ko ne gàmmoo sa kër. koo xam ne nag yow daje Tiwaawan moom nga bëggoon moom moo yore responsabilité Tiwaawan natt na fi responsabilité am toll mu wax ci ak ñim ci war a waxal mu def li mu war a def loo xam ni kenn du ko jam ci diine kenn du ko jam ci xam-xam kenn du ko jam fa tabaarakallaahu ci lislaam kon loolu moom macha allah li mu war a def rek moom la def xale bi ne ci internet bi nag naan waroon nañ ñu woo ñu gàmmu nangam ñenn ñi mën nañu wax ni dañu xir rek waaye ñenn ñi tamit mën nañu wax ni dañu ñàkk yar rek mën nañ ko tudde noonu ndaxte nit boo amee kilifa man daal sama kilifa bu nee wii dama naan wii bu ne noo mani noo bu nee wii noo ma ni wii noo bu nee noo wii ma ni noo wii ba mu des nag mu wax wii ci lu yàlla ni noo wala mu wax noo ci lu yàlla ni wii bu yàlla nee wii mu ni noo nag ma fekk yàlla ndax yàllaay kilifaam bu yàlla nee noo mu ni wii ma fekk yàlla ndax yàllaay kilifaam mais bu dee loo xam ne comme lu mel ni gàmmu la nga xam ni tey mën nañu ko tudde fa tabaarakallaahu bidaa mustahsana mooy bidaa bu ñu rafetlu ndax lan la daje di lekk daje di naan daje di waxtaane yonente bi sallallahu alayhi wasallam daje di tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku ko def da ngay am tiyaaba mais ku ko deful sax doo am bàkkaar te xalifa bi waxul sax buñ ko def dari na ku ne na ko defee sa kër kon xale yooyu ne ci internet beeg di wax ñenn ñi dañu xamul ñooñu dañ leen di jéggal ñenn ñi dañu amul yar ñooñu dañ leen a war a yar waaye mag waxuma sax xalifa bi fa tabaarakallaahu ndax moom boppam la wax waaye waxuma sax xalifa bi ndax ñëwuma macha allah pour layal kenn waaye li may wax mooy mag xale daf koy jox cër ndaxte dafa bokk ci li ñu yare ci aaday Sénégal waaye dafa bokk ci li ñu ñu yare lislaam mooy xale dafay wekk mag kon nag mag bu tëralee la mu tëral te laaju la ci sa xalaat amoo ca xalaat loolu daal moo ci suñu xalaat. mën nañu xam moom nan lay gàmmoo nan lay bésu gàmm lan lay de waaw tafsir fa tabaarakallaahu dafay jéem a tënku ci kilifteef ndaxte macha allah ñun mas naa wax ci benn gàmm ma ni leen te waaw bis bu ñu waxoon tere nañu gàmm bu kenn gàmmoo te man dootuma gàmm. dama koy def nag ngir jaamu yàlla waaye dama doon njabootu Tiwaawan macha allah te xam naa ni bis bu ñu toogee ni bu leen gàmmu dinañ ma indil loo xam ne dina ca mën a am tiyaaba te du doon gàmmu loolu moo waral tafsir depuis xalifa bi wax loolu ba tey gàmmuwul fenn conférence wul fenn moom ci daaraam lay gàmmoo macha allah yàlla dimbali na ko nag ak ci ndimbalal Chérif ay dara ak 2STV fa tabarakallahu ba moom gàmmoom sax tey gën naa yaatu ndax mën na am mu ngi daan nekk tiwaawoon kër alxaaji samba Mbeng yàlla na yàlla dolli njéggalam ak yërmandeem falaa daan gàmmu zuuru dañ leen budd falaa daan gàmmu zuuru gàmmu mais tey bu ma toogee 2S wala ma toog ci daara ji 2S def ko en direct fan lay àgg ña ca Amérique ña ca Brésil ña ca Màkka ñëpp ñu ngi koy seetaan te bu doon fële du ma ko am te nag bu fekkee ni tiyaaba ngay wut lu mu gën a yaatu nga gën a am tiyaaba kon tafsir moom ni muy gàmmoon mooy toog ci daara daaraam fa tabaarakallaahu ak taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di suñu mbokki taalibe ñu tagg yonent bi lekk suñu ay ñam naan suñu suñu ndox bu ñu paree fa tabaarakallaahu jaamu yàlla ba fu ñu sonne daal di dem tëddi ba nga xam ni xalifa bi joxewaat na ndigal ci ñu reprendre programme yi ma reprendre nag samay conférence ak samay gàmmu comme na ma ko daan defee. balaa ñu jeexal côté boobu nga wax ñu importance su burdu. Mhm. burdu importance am euh, lu tax Sidi Hadj Malick bàyyi ay téereem dem jëli beneen téere di ci burdu. waaw burda dafay bokk rek ci importance bi nga xam ni téere bii di burda am na ko. Mhm. mën nañ ci jël benn rek mooy néew na téere booy dégg ni borom ba mu koy way yonent bi feeñ na ko waxuma ni ñi way ñëpp yonent bi feeñu wu leen de déedéet ndax maam Seydi Aj Maalik radiyallahu taala anhu wax nañu ni bi muy bind xilaatu daab amul benn bis bu muy jël këyitam teg ci àlliwaam di capp xalima gi tudd yonent baa ngi toog ci wetam naan ko bindal muy bind waaye téere bi nga xamante ni mooy burda moom dafa leer ni Muhammadul Busayri boobu nga xamante ni mooy Abu Abdullahi doon ab égyptien bi nga xamante ni fa tabaarakallaahu moo bind hamziya muy kay fatarqa bind burda bind qasidatul mudariya bari na lu mu bind waaye burda dafa doon fukki bunt yoo xam ni mu ngi ko tàmbalee ci amin tadakkuri jiiraanin muy xësal jël fa inna amaarati bi suui mattaazat muy tahdiru nafs mooy tey bu ma la doon expliquer xësal dafa am lu ñuy tuddee pédagogie mm, prof bi lépp pédagogie bu ñëwee ci classe bi war a defal élèves yi benn leçon wu mat du ñëw rek tàmbali mat bi day ñëw daal di xaw a tooñ élèves yi ba ñu xawaree ba nga xam ne léegi concentré wu nañ ci classe bi mu doog a dugal leçon bi loolu mën nañ ko tuddee xësal ci waykat yu mag yi ñoo koy def mooy bunt bu njëkk bi bu ñaareel bi daf lay tiireloo attention mel ni ku lay waar bu ñetteel bi ci la dugg ci tagg yorent bi muy zalamtu sunnata man ahya zalaama ba téere ba jeex téere boobu nag dañu wax ni Muhammadul Busayru bi mu koy bind dafa feebaroon feebaru waga ay góom la amee woon nañu wax baras mën nañ ko tuddee feebaru waga bi mu toogee ci néegam di bind tàmbali di bind di bind di bind mu ngeeg feebaru ay góomam guddi lay bind waaye benn jour muy bind ba ci fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun mënatul continuer ndax ci way ci ci ci poésie dafa am lu ñuy tudde misra am lu ñuy tudde bayt bayt mooy benn phrase bu mat ci way bu fekkee misra la mooy fokk nga am ñaari misra pour mën a am benn bayt fa tabaarakallaahu léegi bi mu toogee di way bind fa mablagul ilmi fii annahu basharu muy genn wàllu bayit mënul continuer mu naan fa mablagul ilmi fii annahu basharun fa mablagul ilmi fii annahu basharun fa mablagul ilmi fii annahu basharun mënatul continuer ndax gag na nee nañu yonent bi sallallahu alayhi moo ko feeñu moom moo ko nettali yonent bi mu ko feeñoo ni ko qul wa annahu xayru xalqillahi kullihimi mu daal di àggale bayit ba ni wa annahu xayru xalqillahi kullihimi bayit ba àgg bi téere bi di jeex yonent bi da koo feeñu jël mantoom solal ko ko bi ko yonent bi solalee mantoom ci biir ci ci guddi gi noonu bi mu yeewoo dañ koo gis mu wér ñu laaj ko lan moo la def lii mu daal nit biig day dama am benn téere bu ma doon bind bi ma koy bind baak si ci way wii ñuy wax fa mablaqul ilmi fi annahu basharun mënuma continuer waaye sama maam rasulillahi moo ma feeñu wax ma ni koy àggale ma àggale ko ci la ma solal mantom bi bi ma soleelee manto bi góom yi woon sama yaram yépp ci la deñ ñu daal ni kon téere bi moom bur a la ko waroon a tudde mooy wir mu daal ni déedéet man du ma ko tudde bur a dama koy tudde manto kon burda mu ngi firi manto mu ne comme mbub mi lañ ma solal ba ma wér mbub mi ñu ma solal moom laa koy tudde wala waral burda ñu tudde ko burdatul madih manto aji tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam Seydi Aji Maalik nag comme téere boobu moom fi la ko fekk ndax Mouhamadul Bousayru moom ak sax Cheikhuna Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu Seydi Aji Maalik bi mu ñëwee nag initié moom fii ci Sénégal pour gàmmu mu ne ban bis laay gàmmu mu ne borom xam-xam yi ñenn ñi nee nañu yonent bi le premier ci weeru gàmmu la judd ñu ni déedéet le deux ci weeru gàmmu ñu ni déedéet le trois ci weeru gàmmu ba le douze ci weeru gàmmu am na ñu ni ci la yonent bi juddu kon amul date exacte ndax boobu dañuy nattale ñi ni le premier ñi ni le deux maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anu date ni pour nag ma bañ raté bis bi le 12 bi nag majorité bi moom lañ wax léegi damay def bu weer wi feeñee rek ma tàmbali chaque jour ma jàng benn buntu burda boobu nga xam ne bu ñu barkeel la bu ko defee ma am tiyaabay ku màggal yonent bi jour bu mu tombee rek ma am tiyaaba ji mu daal ni nag léegi ci jàkka ji chaque jour bu ñu xëyee bu weer wi feeñee tey ñu jàng benn bunt def mu dar mooy yaa rabbi salli ala al muxtaari min mudarin wal anbiya wa jamii rusli ma zukiru julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam deuxième jour mu jël deuxième buntu burda troisième jour mu jël troisième buntu ba dix jours yi mat bu ko defee mu doon dix buntu yi fa tabaarakallaahu du onzième jour bi mu ni tey ñu noppalu terewul daf ci daan jàngale ndax bis boobu mbooleem gan yi ci lañ daan ñëw waawan bu ñu ñëwee nag pour préparer suba jour boobu ci la ñuy laaj masala yi muy tontu ba tey mu ngi ci màggal juddug yonent bi ñiy jël ñi war a am ijaaza mu jox leen di ijaaza ñi war a jël tariqa bi mu jox leen tariqa bi bu ñu xëyee nag bisu gàmm bi nag di la douze moom mu dem nekk ca jumaa ja ca zawiya ba moom ca jumaa ja moom maam Sidaaj Malik yenn taalibe yi ndax booba dafa xat daje fa mu leen di jàngal siira yonent bi yenn taalibe yi daje ca zawiya ba mu bay alaaji maam alaaji Maxtaar Sall di leen jàngal fa tabaarakallaahu ñoom it xilaasu daab kon burda téere la boo xamante ni fi mu jaar ak li mu am Seydi Hadji def ko nangul may gi ko yàlla defal waaye modesteem ndax Seydi Hadji Malick loolu ci burda def na ko ci téeréem bu ñu wax nuuniya alaa yaa daadu way ci nabbi ii nii def na ko ci téeréem bu ñuy wax abada buruux abada buruuqun taxta junxi dalaami am wajhu mayyata am rubuucu samaami def na ko ci téeréem bu ñuy wax laqad haaja laqad haaja qalbi lil xaniini ajuulu ba pare xilaatu dahab li mu indi ci yonente bi burda indiwu ko waaye pour bëgg ñu gis ñeneen ak tamit e- effacé boppam ba nga xam ne du day wanewu du dafa bëgg ñu xam ko du dafa bëgg ñu xam liggéeyam loolu moo waral mu dem jëli burda chaque jour ñu jàng benn bunt ba bisu gàmmu gi nag fa tabaarakallaahu ñu wasaare téere yëpp kon loolu mooy njëriñu burdu ci gàmmu initiative bi mooy pour bañ a rate jour juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> euh, bu ñu du ñu ñëw fii nag euh, te laajtewuñu lu bëri ñu ñuy lu ñuy laaj ci yow euh, tafsir ñëpp ko bëgg muy tiijaan bi layan bi ñaseen bi parce que waxtaanam ñëpp ciy gis seen bopp est-ce que yaa ngi jot cofeel yooyu sénégalais yi bëgg la waaw macha allah wax dëgg yàlla sénégalais yi moom ñu ngi yëg seen cofeel ci ci wàllu gépp nag ci kàddu ci jëf fa laaw ci ñëw fii seet si ñu ci defal ñu ay teraanga ñu ngi koy yëg waaye cofeel googu yëpp ñun dañ ko jëlaat delloo ko yonente bi sallallahu alayhi wa man bu nit ñëwee ni ma dama la sopp dama ko naan man it la gën a sopp ndax li tax nga sopp ma wi mooy yonent bi tafsir du jëmm ji du tur wi du ndey ji du baay bi moo tax ñu sopp ko déedéet lu tax ñu sopp ko mooy dañ koy dégg rek muy wax ci yonent bi te nag boo ko bëggee kuy wax ci moom lu baax da nga koy sopp boo ko bëggee kuy wax ci moom safaan du la neex comme Sénégal dañoo bëgg yonent bi te saa su ne dañ may dégg may wax ci yonent bi salaam li nga xamee ni mooy li ne ndax loolu ci téere yi rek la nekk loolu cofeel gi ñu bal yonent bi sallallahu alayhi moo waral ñu sopp ma mais noonu laa leen delloo cofeel ji ndax man fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp li waral ma sopp leen mooy ay soppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ di leen ñaanal nag di ñaanal suñu bopp yàlla ñu ci gis suñu bopp di ñaan bu ëllëgee ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bu ñu génnee seen bàmmeel avant ñuy régler jaami ñoom dañuy daw rek jëm àjjana malaaka kar leen ni leen yéen fu ngeen jëm fu ngeen jëm ñu ni nahnul mutahabbuuna fillaahi ñun dañu bëggante woon te yàlla tax te yonente bi moo waxoon ñi bëggante te yàlla tax seen kër moy aljana moo tax dañuy def direct aljana yàlla ni bàyyi leen leen bàyyi leen leen yàlla nañu boole ci ñooñu loolu moom la ñu wax est-ce que mën nañu xam kañ nga commencé di waxtaanee yonente bi waaw waxtaan fa tabarakallahu xam naa ni bi ñu ko tàmbalee yàgg na ndax xam naa ni ay année 93 92 fekk nañu tàmbali waxtaan ndax 93 la sanc daara macha allah bi ñu tijjee daara 93 ci la ñu tàmbali fekk nañu tàmbali di waxtaan moo tax xam naa ne xaw na yàgg ndax li ñu tàmbalee woon mooy man sama papa daf daan firi alquran nii may def la doon def gàmmu moo ma dàqoon ak gàmmu gënoon maa sawar yàlla na ko yàlla yërëm moom papaam tafsir maam tafsir Abdourahman mi ñu ma tuddee daf daan gàmmu sama ay mag yëpp dañuy gàmm macha allah fi ne sama ay rakk dañuy gàmm mais sam papa yàlla dafa dogal moment bi muy gàmm ma jógee daara mokkal alquran bu daan gàmm ji ñoo daan ànd bu toogee ci fauteuil bi nii ci wetam laay toog bala moo gàmm man maay jóg jàng alquran boo moment bi muy def tafsirul quran tamit ci jumaa kër Maam Alaaji Ahmad Njëgën boobu laay mokk naa alquran ba pare xale laa ndax boobu xam naa ni fa tabarakallahu samay at bariwul moom bu toogee ci piliyaan bi di firi man maa ngi toog ci suuf bu firee benn rubu alquran bu daaneelee man lay jox ma jàng bu ma jàngee mu firi bu loola jeexee ma jàngaat macha allah ci noonu la ma initié ba mujj gi bu demee ci ab gàmmu léeg-léeg day toog ni ma tam jógal nga gàmmu tam la ma daan woowee tam jógal nga gàmmu bu ko defee léeg-léeg ma jóg fa tabaarakallaahu daal di firintu noonu yi ma doon dégg ci moom ak yi ñu doon jàng noonu ba ci yàgg mu tàmbali ay ñeent fukki guddeeg yooyu bu amee alhaaji Idrissa Gay suñu mag bu dee dem mu boole maag moom bu ma demee jàng alquran mujj gi alhaaji idrissa bu mënul dem ñu yabal ma ma dem wala ma ànd ak alhaaji idrissa bu ñëwee mu toog mu ne ma tam jugal gàmmu moom it comme ni sam bàppay def ci noonu la ñu ko tàmbalee fa tabarakallahu ba tey ji macha allah ñu agsi ci fii ñu ci agsi xam naa daal yàgg na macha allah mhm. ñu bëri tamit dañuy laajte ne booy gàmmu da ngay wax bu baax ñi dañ lay dégg est-ce que du métti sa baat ñu bëri dañuy laajte question yooyu ba may ñëw ci yow lu ne laaj nañ ma ko waaw macha allah mhm. bu ñu dee gàmmu dinañu toll benn moment boo xamante ni du ñu sentir ni ñu ngi wax ci kaw wala ñu ngi wax ci suuf ndaxte dañuy nekk ci benn moment boo xamante ni li ñuy def rek la ñuy yëkk mooy ki ñuy waxtaane muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moment boobu nag ñun du ñu xam fan la ñu nekk ak ku ñu jàkkaarlool ak nu ñuy waxee moment boobu léeg-léeg sax nit naan ma da nga war di fomp sa ñaq beeg sa nangam nangam mais moment boobu du ñu yëg ni sax ñun ñaq nañu wala ñaquñu am na benn moment boo xam ni ci biir waxtaan bi mën na am lu ñu def ñoo ko tey ndax moment boobu peut-être ñu ngi fi mais dinañ toll ci benn moment boo xam ni du ñu xam fu ñu nekk moment boobu nag damay wax ni léeg-léeg nit ni ma léeg-léeg ngay gàm ba mu yàgg nga yéeg boo daanoo loolu wóorul nangam dama la naan bu ma daanoo it accident de travail la rek parce que maçon bi yëg ci safo bi daanu yéegul woon pour daanu accident de travail moo ñëw mais moment bi ma toog nit ñi jël micro bi jox ma di ma déglu li ma yëg ni rek moment bii nii lii laa war a def pour nit ki comprendre message bi moment boobu damay bëgg def loolu moment boobu nag du mën naa wax ni peut-être mënu ma wax du ma ànd ak sama sago waaye du nekk moment boobu lu mu laaj rek dama koy def parce que moment boobu jàpp naa ne lu ma ci góobe gar ndaxte tiyaaba laay wut ak tamit neex nit ñi lu bégal nit ñi lu leen comprendre loo message bi ak tamit lu ma yàlla fay moment boobu nag loolu dafa may jaral lu nekk fa tabaarakallaahu <laughs> est-ce que mës nga mën nga ñoo mm, wax benn anecdote boo xam ne dundu nga ko ci sa kenn ku la bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal la teraanga wala loo xam ne daal marqué na la loo xam ne dootoo ko fàtte. waaw am na benn boo xam ne de moom léeg-léeg dinaa koy nettali du ma koy fàtte lu bari. Mhm. benn gàmm bu ma doon def marché bu Thiès waaje génn na àdduna yàlla na ko yàlla xaree aljana. Mhm. fi may gàmm ba mu yàgg boobu maa ngi woon ci Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci laa nekkoon di ci wax maa nga woon ci ay waqaftu bi babillahi wahdi muwahidan fa nu diitu fa jaddi rasulillahi taa nekk ci Abdul Qadir Jeylaani maa ngi gis benn waay boobu yàgg na mu ngi toog di jooy fi mu toog ma nekk ci biir nag bu baax waykat baa ngi way maa ngi firi macha allah ñàkk tooy xépp di yuuxu waa ji di jóg di ma jox xaalis saa bu ñëwee jox ma xaalis mu ngi jooy jooy yu metti ba yàgg xam naa ni mu jóg ñëw si ci man bi muy ñëw ci man pour man daf may joxaat xaalis mais bi mu ñëwee kurfañ la ma door dañu ma tell bi ma dóoree kurfañ bi man xaw naa sax daanu noonu micro bi wadd bi micro bi waddoo man falaa bàyyi micro bi waa bi ma dóoree daal li ma yët mu wax ko mooy bala nga ñoo rey ñu rey la bala nga ñoo rey ñu rey la laa génne boobu sama oto mu nga gaaree ca gannaaw mais am na sama xarit bu ma àndaloon moom it génn naa duna Pape Demba Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ci moom laa ñëw rek moom it mu génn ni ma lan la lan la ba gaañu wo ba gaañu wo ba gaañu ndax gis na dóor bi ma ni ko tijji loto bi tijji loto bi mu tijji man ko nañ daw gaaw foofa gam gàmmu gayam boobu moom fa tabaarakallaahu bariwul lu ma koy fàtte waaye it ma xam ni loolu cofeel la woon boo xamante ni kooku ko doon def joxe na bala mu amoon jeex xamatul fu mu nekk kontaanteem moo taxoon fa tabaarakallaahu mu def loolu ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla le ak Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ñaanal yàlla Pape Demba mama rawale kera moom it yàlla na ko yàlla xaree aljana loolu daal lu ñuy fàttaliku ci gàmmu la bari na nag léeg-léeg ñu jànkonteeg yu baree baree baree bari mm-hmm. macha allah ci gàmmu gàmmu nañu ba mu yàgg fa tabaarakallaahu nit ñëw songuñu ma yéeg ca kaw taabal ja sécurité bi ñëw wër taabal ji taxaw pour ñu bañ ñu laal parce que bëgguma gàmmu gi yàqu te kii di ma songu xam naa ne bu ma continuer dina ma gaañ ndax nekkatu fi mais dama yéeg ci kaw taabal ji ñu wër taabal ji encercler ko ma continuer di gàmmu moom ñu jël ko yóbbu ko yooyu yëpp am na macha allah def nañu gàmmu tamit ci ab dëkk man ak ñoom Baye El Hadji Ndiaga Ndiaye fi ma nekke ci yonent bi salaay salaam am ku yuuxu daanu ba ñu xëyee loolu it macha allah metti nañu torop donte lee nag lu neex la ba ñu xëyee ñu woo ñu téléphone ni ki daanu woon biig ci gàmmu gi dafa mujj génne àdduna foofu la jaare loolu suñu xel dal na ci ke ni mu nga àjjana ndax fa mu deewee waaye neexuñu ndax bu ñu sañoon tamit nag dañuy gàmmu nit ñi di bég di defaru di jub waaye kenn du ci dee loolu it fa dina ñuy marqué ci gàmmu lu baree baree bari ñu ñaanal ñooñu ñëpp nga xam ne génn nañ ci àdduna yàlla leen yàlla xare aljana ñaan gàmmu yi ñuy def yàlla buñ ci gis suñu bopp incha allah xam naa nag yàggatul kër yi nga maîtriser yëpp koo laal dina kontaan. kër diine boo dugg rek eh, nit ki dina kontaan nan moo la ko may loolu tamit. waaw loolu moom kër diine yi ñuy dugg yëpp mooy dañ koy jàng rek. Mhm. macha allah man bi may jàng fa tabaarakallaahu sama sëriñ Oustaz Mansour Wade ma daan wax naan bul jàng tem da ngay bul bul préparé tem da ngay jàng ba nga xam ni tem yëpp da koy mokkal. macha allah moo tax new na lu ñuy def conférence war a gàmmu di préparer tem moo tax nañu doon jàngi téere Seydi Aji Maalik gi noonu lañ doon demee di toog ci koo xamante ni ab murit la bu jàng téere Serigne tubaay yi mu di ñu ko jàngal noonu lañ doon demee ci koo xam ne ab xaadir la bu jàng téere Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani yi téere Cheikh na Cheikh Saad bu yi mu ñu koy jàngal parce que téere mën nga am benn niveau baat yu baree bari nga mën ko firi ci arab boo amee benn niveau bi mais du yem ak buñ la ko jàngalee téere murid yi lu ci bari maa ngi ko jàngee ci Cheikh Daabay Gaye yal na yàlla xare ko aljana téere xaadir yi fa tabaarakallaahu yu ci bare bari maa ngi ko jàngee ci Cheikh Doudou Ndiaye Seck macha allah bu dee ni nag téere yi nga xamee ne moo aju kër maam Seydi Hadji Malick yooyu yi ci yëpp sam papa moom ma ko jàngal wala oustaz Mansour Wade euh, bu ñëwee nag ci bërëb bi rafet na moderne na daala daara moderne rafet na neex na toog am na espace kañ nga tabax daara bi daara bi ñu ngi ko tàmbali tabax 2016 mu ngi pare deux mille 2018 la lenn li pare ba ñu inauguré ko mais ci la ñu continuer nag di tabax rek macha allah 2018 ci la pare ñu ngi ko inauguré le 7 juillet 2018 ci la ñu ko inauguré. Mm-hmm. ñaata xale ñoo fi nekk ñuy jàngal. actuellement nii may wax ak yow 270 xale ñu ngi fi. fa tabaarakallaa ñi fi nekk di liggéey mat na cinquante nangam 50 yi ëpp na. entre ñi nga xam ne ñooy jàngale ak ñi nga xamee ne ñooy togg ak ñiy nettoyer ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu médecine bi muy infirmerie bi ak ñi ci atelier couture bi ak ñi ci boulangerie bi ndax dafa am centre de formation ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ñëpp daal doon na ay cinquante et quelques personnes yoo xam ne ñu ngi fi 2018 la ñu ko inauguré macha allah 270 xale ñoo fi nekk actuellement fii may waxee ak yow. est-ce que alxuraan rek nañ fiy jàng. daara ji dinañ fi jàng alxuraan mais dinañ fi jàng tamit français programme mu Sénégal moom la ñuy jàng. parce que am na CI ba CM2 mais cycle primaire xale bi mu ngi koy def ci quatre ans ndax dañu boole CI CP 1 an la koy def C1 C2 mu def ko ci 1 an après mu def CM1 après mu def cm dinañ fi jàng aussi xam-xam téere xam-xam yi fiq naxwu luga arut téere yooyu yëpp fa tabaarakallaahu dinañ ko fiy jàngale gannaaw loolu alquran lañ fi jàngale ak métier tamit dinañ fi jàngale métier. <laughs> am na solo fu ma lay bàyyee nga tëjee rek mooy message ci jeunes yi. Mm-hmm. tarixa yi fu nekk ngay gis ci réseaux sociaux yi ñuy ŋàññante ku ne di xëcc sa sëriñ saagante bi mm-hmm. teg ñàkk ñàkk teggin bi nekk ci internet bi nga lancé message xale yi ñuy seetaan. waa macha allah xanaa wax rek xale yi mag ñi fa tabaarakallaahu ñu xam ni ñàkk teggin moom lu mu la xañul du la ko may. Mm-hmm. te tamit nag léeg-léeg nga nekk ci internet bi làqatu ci nga tudd Samba tudde sa bopp Demba. di saaga Moodu saaga boobu nga saaga Moodu yàq sa àdduna ak sa àllaaxira te Moodu la xamoo ko Moodu sax yëgul ni yow yàq saaga nga ko yëgul ni sax yow yàqule nga ndax Moodu la te loolu baaxul ndax te yonent bi salaay salaam noona mooy tandiku leen tooñ mooy tandiku leen ñaanu ku ñu tooñ doonte du jullit doonte yéefar la mooy tandiku leen ko ndax ku ñu tooñ kat moom suñu borom subhaanahu wa taala bu ñaanee rek borom bi da koy nangu kon nag ñun di wax mooy ñu xam ni internet bi lu baax am na fa safaan am na fa macha allah nit ki ngeen ñàkk a bokk dégg-dégg ñàkk a gis-gis warul tax mu wax nga saaga ko baa nga xas ko wala ngay commentaire loo xamante ni xamoo ko man de internet bi jëriñ na ma lu bëree bëri macha allah te lan moo tax mu mën a wax ni jëriñ na ma lu bëree bëri daan naa war a def benn gëstu ma war ko gëstu ci fukki fan ak juróom du ma ko gis léeg-léeg dinaa woo ay boroomi xam-xam sax di leen laaj mais léegi ci internet bi léeg-léeg ma def gëstu boo xam ne duma ma sax tijji téere damay soxla benn baat rek par exemple ma dugg ci Google bi daal di def ci arab par exemple may seet baatu nogay ci misaal ndax nogay am na ci alquran am déet damay bind nogay fil quran rek mu génneel ma ni ma nogay amul ci alquran wala mu génneel ma ni ma nogay am na fukki nogay ci alquran saar sangam am na ko saar sangam am na ko day gën a yomb ci man kon lu léeg lee sax ñu laaj ma loo xam ni teewluwuma ko moment biñ ma koy laaje internet bi wax ma ko léeg-léeg mën nañ ma laaj faratey julli ñaata la mën naam xaw ma ko moment biñ ma koy laaj ma daal ni ma daal di poser question faratey julli ñaata la ci mazhabu maalik wala nangam ak nangam ci almazahibul arbaa ñu génneel ma ko indil ma fan laay dellu pour xam ko kon internet bi fa tabaarakallaahu ku bëgg a defaru la cay defaree moo ëpp la cay yàqee waaye nag ki nga xam ni moom yoonu bon daal la jël na xam ni suñu borom subhaanahu wa taala moom du farak aji tooñ kon nañu ànd ak yar ñu xam ni internet bi macha allah defaru ci yomb na yàqu ci yomb na mais yàqu bi ci gën a gaaw nag te gën cee bari mooy nga saaga wala nga xas koo xam ne jotewu leen dara mën naam xamu la martabaam wala suñu borom subhaanahu wa taala jaar ci saaga bi nga ko saaga yàq sa àdduna yàq sa laaxira te moom du ko yëg. kon daal ñu ngi ñaan ñëpp ci jàmm woow suñu mbokki waxtaankatu diine yi. aussi ñoom it ñu ñaan leen ndax lu baree bari am na ay yenn thèmes yoo xam ni dafa sensible boo ko waxee ñu def ko ci internet wala dara léeg-léeg mu indi fitna. Mm, ku mel ni Seydina Cheikh Chérif radiallahu taala anhu bu daan toog di waxtaan danaan afi sama i saxaab ndax asamaan si am na nuage ndekete loolu kot la kot bi mooy la ndax am na ku ñu rax ku bokkul ci tarixa bi bu ñu ko nee naam yaa cheikh fi sama i saxaab asamaan si am na nuage mu daan nit isan kon nañu waxtaane diine ji ndax diine ji ñëpp a ko bokk ñëpp a ciy gis seen bopp bu ñu ko nee laa yaa cheikh maa fi sama i sahaab asamaan si amul benn nuage mu xam ne kon ay taalibeem rek a toog mu waxtaane tariqa bi parce que am na yenn nat yoo xam ne dinaa koy wax ñu bokk benn baay suñu papa am ñeenti jabar ma toog ci digg ëtt bi naan sama yaay fi gën sama yaay fi gën ku mel ni man dina jóg ni ma waxoo dëgg fitna dina am kon bu ñu toogee ci ëtt bi nañu waxtaane suñu papa bu ko defee ñëpp gis ci seen bopp bu ñu duggee ci néegu yaay comme yaay moo fa te ñun ñëpp moo ñu jur ñu waxtaane mbaaxu yaay bu ñu demee ci penc bi ñu waxtaane mbaaxu maam loolu mooy lan am na palace booy toog mën nga waxtaane sa sëriñ kenn du la saaga kenn du la mere am na palace booy toog waxtaaneel yonent bi salaay salaam ñëpp gis ci seen bopp ñun daal loolu ñu ngi koy ñaan mbokki waxtaankatu diine yi yenn jotaayu werante yi ñu bàyyi ko nee naa tey man gàmm yi may gàmm yaakaaruma ni nit mën naa ñëw convaincre ma ba ni ma gàmmu daa araam ba ma nangu ko ndaxte la mu jàng ba jàpp ni gàmmu daa araam loola laa jàng ba jàpp ni gàmm bu ma ko defee tiyaaba la may jural waaw kooku nag man jàpp naa ni mënuma convaincre loolu laay wax moom jàpp naa ni mënuma ko convaincre ñu woo ma nag moom ci ab débat du ma dem moo tax man yooyu doo ma ci gis. ab yi lu tax duñ la si gis. du ma ci dem parce que werante la parce que man li ma gëm ci plateau mooy plateau boo xam ne xam naa ni kii dafa juum. dafa xamul ma jéem ko convaincre mu fekk si ma wala man ma jàpp ni mën na am maa juum mu jéem ma convaincre ma fekk si ko mais plateau boo xam ni wóor na ma ni kii du ma fekki du ma ko fekki ñu dem fa di werante fan lay mujj après égal saagante égal réeral nit ñi du ko jar moo tax laa ikraha fi diin qad tabayyana rusdu min al ghayy ki gëm ni gàmmu baaxul nañ ko bàyyi mu gëm ni gàmmu baaxul mu toog bañ ci werante man mi gëm ni gàmmu baax na parce que moom la tax mu gëm ni gàmmu baaxul mooy daa jàpp ni bu ko defee du am tiyaaba man li tax may gàmmu mooy damaa jàpp da damay am tiyaaba na ma bàyyi ma gàmmu ma bàyyi ko mu bañ a gàmmu du ma ko jéem a convaincre du ma jéem a convaincre bu gàmmu jotee ma gàmmu bu seetaanul mu toog ña bëgg gàmmu ñëw seetaan moom it bu leneen am jotee bu dee ni man gëw ma loolu ma bañ caa dem fa tabaarakallaahu parce que l'islam bi leer na ay yennati détail rek mooy indi problème yenn détail yooyu nag waruñoo jaral toog ci ay plateau télé internet ko defee kii saaga fa le kii ni wax nga dëgg kenn waxoo dëgg ñu réeral nit ñi loolu daal man du ma ko def te maa ngi ñaan suñu mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu moytandiku lu mel noonu loolu daal lu ñuy message la boo xam dañu koy baaxee mbokki jullit kontaan nañ trop ci li ñu dalalee fii vraiment ñun ay fans lañ ay lépp lañ ñëw waxtaan ak yow la première fois dañ lay suivre bu baax ma bàyyi la nga nuyoo ak euh, ñan nga nan ngay tëjee macha allah li ñuy tëjee rek mooy mm, jéggalu mbooleem ñi nga xam ne ñooy soppe yi ñuy seetaan ak fu mu mënti doon léeg-léeg ñun ñu juum parce que bu ñu yemee ci li yàlla ak yonent bi wax rek rek rek rek du ñu juum waaye léeg-léeg dañuy commentaire commentaire boobu ñu koy commentaire nag ñun li ñu ci jublu mooy bëgg nit ki comprendre ki gën a gàtt Aliou comprendre ci biir commentaire boobu nag léeg-léeg ñun ñu juum ci léeg-léeg mu am soppe boo xam ni dina ca dégg lu ko naqari ci ñun waaye ñu ngi koy jéggalu ka nga xamante ni it mën na am du soppe wala moo xam ku neutre la la ca dégg te du noonu mu xam ne suñu yéene du ca loolu fa tabaarakallaahu ndax ñun xamuñu lépp tuuti la ñu xam waaye daal suñu bëgg-bëgg mooy bëgg ñun même bu ñu baaxul bëgg nañu nit ñi baax bëgg nañ nit ñi tegu ci njub fa tabaarakallaahu sant leen yéen waa Sénégal fa tabaarakallaahu ndaxte tamit macha allah du tey la ñu jëkk a daje ak yéen donte miinuñu leen du tey la ñu jëkk a daje ak yéen waaye bokk ngeen ci site yi nga xam ne dañ leen di suivre mm, gisaguma fu ngeen di dugale ci seen ay ci seen média loo xamante ni dina yee fitna ndax wax naa ni léeg-léeg journaliste bi dina am information boo xam ne am na ko wóor na mais bu ko dugalee mën naa yee fitna na ko càmbar ci boppam na ko càmbar ci ay waajuram na ko càmbar ci sëram bu ko defee bañ ko dugal ngir baña a yee fitna mais Sénégal macha allah bokk na ci site yi nga xam ni seetlu nañu ni daal ñoom macha allah seeni information buñ ko dugalee dinay doon lu wóor dinay doon lu wér te it nag man gisaguma fu ñu dugalee loo xam ne mën na yee fitna loolu nag ñu encouragé leen ci ñaanal leen ci sant leen it ci ñëw bi ngeen ñëw fii ndax ñëw bi ngeen ñëw fii yéen a ngi siiwal lu baax ah du ñàkk ku dugg ci seen sit gis daara ji ngeen siiwal lu baax loolu ngeen di siiwal fa tabaarakallaahu te siiwal lu baax yiw la tiyaaba la kon mënuñu def lu dul sant leen ci ñaan yàlla na yàlla subhaanahu wa taala jàppale leen ba ngeen am fa tabaarakallaahu télé bu mag am ay journaux yu mag am ay organe de presse yu mag yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñu bëree bëri dinañ ci xaj wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. c'est bon ah, macha allah